Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3 énergie ñoo leen di may seen revue de presse jàngeen jëf géew politique gaa ngi tàmbalee xumb réew mi quotidien di yëgal tey nii atel di kuréel gi nga xamante ne ëmb na ay parti politique ak i mouvement xamle nañu ni daañu amal seen ñaxtu bu njëkk muy manifestation bi ñu nam amal ñaar fukki fan ak juróom ci weerub septembre bi ñu nekk ca place de la nation moo ne de ca jamono jooje yéene bi mu ngi ñuy xamal ni jëwriñ ju ñu dénk kaaraange bi réew mi tey saytu lépp lu jëm ci wàllub élection war na daje ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy acteurs yi ni ki ëllëg ci samedi gi waaye loolu teewul ndax bis bi le jour mu ngi ñuy xamal ni atel jamono ji mu ngi mel ni kuy daas fanaanal ndax manifestation bi ñu namm amal ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weerub septembre bi ci place du la nation xew-xew bi jàppaleen ni du doon lu ndaw ndax la tribune yéenekaay mu ngi ñuy xamal ni lu toll ci téeméer ak fukk ni ay parti ak mouvement politique ñoom ñoo taxaw tembe ngir xeex li nga xamante ne moom moo jëm ci ñàkk lerange amal laata législative yooyee Vox Populi mu ngi xamal ni daal opposition bi mu ngi mel ni kuy teg pression nguur gi fi nekk li ko waxal bokk na ci manifestation bu mag bu njëkk bi nga xamante ne ñu ngi ko war a amal ci nguuru Bassirou Diomaye fay 24 heures ne ko opposition bi kon taxaw nañu léegi fas yéene ko defante ak nguur gi fi nekk ku ñuy xaar nag mu defante dëgg mu ngi ci xët bu njëkk l'observateur muy Amadou Ba ndax yéene kay groupe Futur Média bi nee na jamono ji dafa mel ni moom bi xamante ne ñu ngi koy xaar ci beneen taxawaay yéenekaay bi dikk na yi tamit ci ana lan moo waral attaque yi nga xamante ne mu ngi tukkee ci Pastef di jëm ci ki nga xamante ne moo nekkoon jëwriñ ju njëkk ci nguurub Macky Sall ak lu ñuy xaar moom ci wàllu boppam amadu Ba ngir mu indi beneen doxalin xëy na bu wutee ak ni mu doon defee ci biir Benno Bokk Yaakaar Benno googee ci suul ko la ñu jëm source a moo dikk tey ci li nga xamante ne moom la coalition bi ci boppam di dund ak parti yi fa nekk bokk na ci sax APR ndax yéenekaay bi mu ñuy xamal ni gannaaw màgget Maguette Sène Aly Ngouille Ndiaye tamit moom daa dinay samp parti boppam ñu daal di wax ci wàllu njàng mi ak njàngale mi ndax réew mi quotidien dikk na ci taxawaay bi nga xamante ne nguur gi fas yéene ko amal jëmale ko ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy tere ay élèves ñu daal di muuru ci seeni école yéeni kay groupe réew mi network bi di xam ne ni kon Ousmane Sonko daa dina ci dellu siyaat di sàkku ci ñu jiite l'école yi bu ñu dàkk benn élève ci colinam les échos ne Sonko ci boppam dafa mel ni ku fas yéenul dellu ginnaaw benn yoon lu jëm ci lu ñuy tere muuru ci yenn école yi fii ci Sénégal moom njiital jëwriñ yi yokk ci ni état ci boppam war na taxaw tembe di saytu lépp lu jëm ci xeetub beddi te ñu koy def ci établissement yi ci Sénégal lu quotidien ne état bu Sénégal jëlaat na kaala gi daal di koy teg ci bopp bi ngir waa jël ubbiteeg l'école yi nga xamante ne moom la ñu dëgmal yéene kay ma jàmbal jaan bi di xam ne ni kon jëwriñ ju ñu dénk wàllu njàng mi ak njàngale mi war naa fësal bu yàggul dara ab arrêté bi nga xamante ne dina tax ba règlement intérieur yi ci école yépp ci Sénégal ñu daal méngoo ak li charte ndeyu réew mi njàng mi ak njàngale mi ci wàllu woowee le Sud Quotidien sax dikk tey ji muy wax ci dogal yi nga xamante ne kon daa dinay tukkee ci ndajeb conseil interministériel bi xewoon ni ki démb di xam ne ni kon état ci boppam fësal na ay dogalam samp ay pionam jamono ji mbëbët li mooy fexe ba am année scolaire 2024 2025 bu mucc ayib taxawaay bu mucc ayib bi MEDES am digganteem ak i partenaire am njiital kuréel ga daf ko fas yéene wëyal réew mi quotidien dañu xamal ni moo tax moom président Mbagnick Diop ngir gën a jëmmalaat lëkkaloo bi nga xamante ne daf ko sek rawatina ak ñii di waa GPF ñu war cee yokk sax waa Euronews lëkkaloo bi nga xamante ne moom la Sénégal am ak FMI dafa mel ni ab pression dëgg la ciy dund enquête yéenekaay moo ni dikkaat ci crise bi nga xamante ne moo jëm ci bor yi di xam ne ni kon FMI li mu yenn Sénégal jamono ji lu diis la moo tax suñu réew daanaka ci wàllu bor bi lu metti lay dund mu indil ko nag ay gàllankoor yu bëri rawatina ci digganteem ak ay partenaires internationaux yi moo tax kàdduk Demba Moussa Dembélé ci yéenekaay bi économiste bi di xam ne ni kon Sénégal ci boppam moo war a dakkal bépp lëkkaloo ak ñii di waa FMI li FMI googe wax ci contre-performance yi ñu njort ci recouvrement yi nga xamante ne état bu Sénégal moo ngi koy def dafa mel ni weddi am na ca le témoin yéenekaay moo fësal li nga xamante ne moo tukkee ca direction général des impôts et domaines di xam ne ni kon Sénégal jot na recouvrir lu toll ci junni ak juróom-ñetti téeméeri milliards ci njeextalu weeru août bi wees fii ak njeextalu octobre mën nañoo tàbbi ci ñaari junni milliards ci recouvrement bi ci le soleil yéenekaay mi ànd ak ñun ba ci diwaanub Njaasaan di nettaliyaat li xewoon ci tukki bi nga xamante ne njiitu mi amaloon na ko foofe ci dëkk bu tedd ba moom Basiiru Jomaay Fay li mu fa jëlee bokk na ci kilifa kilifay Njaasaan yi nga xamante ne rafetlu nañu dëgg dogal bi nga xamante ne jël na ko ngir tabb kuy jiite direction des affaires religieuses waaye tamit taxawaay bi nga xamante ne état am na ko ak kilifa diine yi libération taxaw ba tey ci mbiram Jérôme Bandiaki yéenekaay bi di xam ne ni kon am na lu yees ci enquête bi ndax gannaaw ba ko niki barki démb ca këram ci plateau dikk demaat na ca këram bi nekk ca mbuur daa di jël lépp li nga xamante ne fekk nañ ko ni ay document kii bokk ci service sécurité bu APR ba tey nag mu ngi ci loxol enquêteurs yi ci réew mi people sekk nañu waxtaan wu yaa ak artiste bi di Mister Grogu muy ki nga xamante ne dafa boole ñaar ci ay culture muy bu Sénégal ak Cap-Vert bi nga xamante ne am na fay cosaan wallu tàggat yaram ak Ligue des champions record di nettali taxawaay gu mucc ayib bi nga xamante ne kon ñaari doomu sénégalais